iis ak naqar dalatina askanu Sénégal rawatina Tiwaawan ndax sànq léegi nii rek fi nga xamante ni moom mooy hôpital bi nekk fële ca Tiwaawan hôpital ba nga xamante ni ñu nga ko duppee maam Abdou Aziz Dabakh hôpital ba moo daal di lakk-lakk bu metti ba fukk ak benn liir yu tooy xepp daal di ñàkk seeni bakkan di xibaar ba ñuy toppandi lan moo ko sabab waaye jàpp leen ni ki nga xamante ni moom mooy président Macky Sall daal di na tuité ca page Facebook am di ñaawlu mbir mi di ko sax naqarlu waaye tamit di jaale mbokk yi xarit yi ñi nga xamante ni ñàkk nañ si xibaar baa ngi noonu lakk bu méttee métti moo am fële ca hôpital bi nga xamante ni ma nga nekk fële ca Tivaouane dinañ si ñëw nag ci ni mu gën a yaatoo waaye jàpp leen di tiis bu méttee métti la foofa nga xamante ni moom mooy Tivaouane lakk ba nag lan moo ko sabab wax naa leen ko sànq dinañ ko toppandi ci ni mu gën a yaatoo